alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah abonné leen ci seen chaîne MALBN bu leen fàtte bës bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi bismillahi rahmaani baabu al mubasharati lissaayimi وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه وقال قال ابن عباس مآرب حاجة أو طاووس أو طاووس غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه bunti jonjoo ci ku or jonjoo jigéen ci ku or Aïsata radiyallahu anha mu ne jonjoo amee itam pay mi moom bu mu ko jege xaram na ko solo nañ jëlee ci Aïsata radiyallahu anha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa daan na fonante di jonjoo te fekk mu ngi or waaye nag moom yonent bi moo gën a moom nit ñi aajoom maanaam moo gën a moom boppam loolu yëpp mën na ko def te dara du ko ci fekk ne jaabir wax na ne su fekkee ne nit góor dafa xool jigéen ba génne maniyu te ci xool ba rek bu dalee mu ne kooku kooram yàqu dafay mottali koor ba bis boobu baabu alqublati lissaa'imi xaddasanaa muhammad bnu lmusanna xaddasanaa yaxya an hishaam qaala axbarani abi an aishata an annabiyi sala allahu alayhi wa sallama wa xaddasanaa abdullahi bnu maslamata an malikin an hishaam an abihi an aishata radiallahu anha qaalat إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت ne foonante ak jabar te fekk yaa ngi or solo na jëlee ci Aïchatu radiyallahu anha mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis jooju mooy ne nit mën naa or di foonante te du jege paiement te kooram du yàqu Aïchatu radiallahu anha wax na bi daan nekk di fonanteeg lenn jabaram yi te fekk mu ngi or mu ne Aïchatu nag moom waxee loolu ba pare dafa ree dafa ree حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام عن ابي عبد الله حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن عن أمها رضي الله عنهما قالت بينما أنا مع رسول أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حدت فانسللت فأخذت ثيابي ثياب حيضتي فقال ما لك أنفست قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. ibnu abi kathir mu jëlee ci abu salamata mu jëlee ci zeynabu bintu musalama yaayam musalama nettali na ko soxna ci soxna yonantu bi la bokkoon nettali na ko nag maag yonantu bi dañoo nekkoon ci lu mel ni dër nii jardin yi nga xam ne ay ñax rek moo leen wër ay yu wert rek moo leen wër mu ne foofu ma gis baaxi jigéen ma rocc ma rocceeku jël suma yére yi yi nga xam ne bu ma gisee baax moom lay sol mu ne yonent bi ne lan moo la dal ndax dangaa gis baax ma ne ko waaw mu ne ma duggaat ak moom ci dër boobu ñu nekkoon mu ne moom ak yonent bi ñu bokk di sangu ci benn ndab yonent bi di ko fóon fekk boobu yonent baa ngi or sallallahu alayhi wa wa bal fa alqaahu alayhi wa huwa saaimun wa daxala shaabiyu alxamaama wa huwa saaimun wa qaala ibnu abbaasin laa baasa an yatataama alqidra aw alshay'a wa qaala alxasanu laa baasa bilmadmadati wa tabarudi lilsaaimi wa qaala ibnu mascuudin ida kaana yowmu sawmi axadikum falyusbix dahinan mutarajilan wa qaala anasun inna lii abzana ataqaxamu fiihi wa ana saaimun wa ana saaimun wa yudkaru an annabi sal allahu alayhi wa sallam annahu staaka wa huwa saaimun wa qaala ibnu umara yastaaku awala annahaari wa aaxirahu laa yabla'u riiqahu wa qaala ataa'un in isdarada riiqahu laa aqulu yuftiru wa qaala ibnu siriina laa ba'sa bisiwaaki ratbi qiila lahu tacmun qaala walmaau lahu tacmun wa anta tumadmidu bihi wa lam yara anasun walxasanu wa ibrahimu bilkuxli lisaaimi ba'san bunti nit ku oor ba pare sangu ibnu umar radiallahu anhu mu ne daan na tooyal mbubbam ba mu tooy ngir tàngoori koor gi mën a oyof ci moom dañ ko daan tooyal ba mu tooy ak ndox ñu sànni ko fekk mu ngi or shaabi yu itam mu ne daan na dugg ci xamaam yi ci réew yi arab yi la am seen xamaam yooyu mu ne daan na ci dugg te fekk mu ngi or ibnu abbas moom itam ne mos moslu euh, cin lu ñuy togg wala dara ci ku oor mu ne dara nekku ci xasan mu ne gàllaxndiku seddal sa gémmiñ dara nekku ci sedd lu itam dara nekku ci ci ku oor maanaam dem ci place bu sedd dëdd fa ngir wàññi tàngoor mu ne ibnu Mas'ud ne na kenn ci yéen bu naree oor buy xëy sax daf na diw defar kawaram ba mu rafet fekk na bu xëyee rek ci koor lay xëy anas ibnu malik nee na man amoon naa mbalka moo xam ne dama ciy dugg fekk maa ngi or solo nañ jële ci yonantu bi sallallahu alayhi wa ne yonantu bi soccu na fekk mu ngi or ibnu umar ne na man ki or mën naa soccu ni bëccëg bi ak mujjanteli bëccëg bi waaye nag bu mu wan bu mu wan lor yi ata mu ne su fekkee ne soccu nga wan lor yi moom nag wax ne moom waxut ne dog nga waaye daal xam naa nga bañ ko def mu gën ibnu sirin na itam ne na soccu bu tooy dara nekku ci ñu ne ko ah dara war na see nekk ndax dafa am caf nga dafa tooy am caf nga mu ne ndox ndox a ngi nii am na caf nga te ñi or mën nañoo galaandiku te du yàqu seen koor anas ak xasan ak ibrahim ñoom itam wax nañ ne ku oor tusungalu loolu yàqut ci kooram dara sallallahu alayhi wa sallam حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر junuban fi ramadana min gayri xulmin fa yaxtasilu wa yasuumu solo nañ ba tey jëlee ci aïchatu radiallahu anha mu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam fajar daan na ko fekk ci weeru koor mu amee janaba yoo xam ne duur ci gént la ko amee maanaam dafa jonjoog jabaram am ko waaye mu ne dafay sangu rek dal di or bi suubu salallahu alayhi wa sallam حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا ثم دخلنا ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك solo nañ jëlee ci xaaris ibnu hisham ibnu mughira mu ne dégg na aboubacar ibnu abdurahman mu ne man àndoon naa ak suma baay ñu dem ba dugg ci sayyidatuna aïcha radiallahu anha mu ne aïchatu ne maa ngi seede ci yonent bi ne daan na xëy ame janaba joo xam nañ ci sëy la jóge jógewul ci gént te bis boobu daf koy or mu ne ñu dugg bi jógee ci Aysatu ñu dugg ci Umu Salama Umu Salama itam nettali lu mel noonu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baabu alsaimi ida akala aw shariba naasiyan wa qaala ataaun in istanthara fa daxala almaau fi xalqihi la basa in lam yamlik wa qaala alxasanu in daxala xalqahu dubaabu fala shay'a alayhi wa qaala alxasanu wa mujahidun in jaamaca naasiyan fala shay'a alayhi buntin ku oor lekk wala mu naan te fàtte ne dafa oor ata wax na ne su fekkee da nga fiiru maanaam di jàpp dugal ndox mi bakkan yi mooy fiiru am lu jàll ci sa prox mu ne dara nekku ci du yàqu koor su fekkee ne mënoo koo téye waaye su fekkee ndox mi nag mu ngay dem te mën nga koo téye nga téye ko ba mu jàll ci sa prox mu gën xasan ne na su fekkee ne nit dafa ubbi gémmiñam nii rek weñ weñ daal di dugg ci gémmiñam jàll dem dara waru ko ci te yàqul kooram xasan mu jaay ba tey wax nañ ne képp ku seeg sa jabar fàtte ne da ngaa oor ba tey sa koor yàquwut wala cheale dara warul حدثنا عبدان أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا هشام حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na su ne nit ki oor dafa fàtte lekk walla mu fàtte naan na mottali koram yàlla moo ko leexal su fekkee lekk la su fekkee lum naan la itam moo ko nandal loolu yàqu koram sallallahu alayhi wa sallam baabu siwaaki ratbi walyaabisi an aamir ibni rabiata qaala raaytu annabiya sallallahu alayhi wa wa huwa saaimun ما لا أحصي أو أعد وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم صائم من غيره وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب wa qaala ataaun wa qataadatu yabtaliu riqahu bunti soccu bu tooy wala bu wow ci ku oor mu ne nettali nañ ne jële nañ ci amir ibnu rabia amir ne gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy soccu te fekk dafa oor mu ne loo xam ne mënu mu ko lim mënu mu ko compte xanaa ay yoon yoon gis na yonent mu def loolu abu hurayra mu tam solo na jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ma buggutoon sonal suma xet kon danaa leen digal ñuy socc waxtu jàppe jaabir itam solo la lu mel noonu ak zayd ibnu xaalid jëlee ci yonent bi sallallahu te nag tuddut ci maanaam jàpp jàpp rek la wax waxut ne lu may ku jàpp ci weeru koor maanaam kon weeru koor ak lu dul weeru koor boo jàppee man ngaa soccu comme yonent bi dana su ba sonal xeet bi dana leen ko digal kon ku ko mën rek war na ko war na ko def dara nekku ci aïchatu radiallahu anha jëlee na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ne soccu dafay laabal gémmiñ te dafay gërëm loo borom bi ata ak qataada wax nañ ne su fekkee ne soccu nga ba am lu jàll sax ci sa purax ci lori socc bi yàqut dara ci sa koor sallallahu alayhi wa sallam حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر قال حدثني الزهري الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء illaa gufira lahu ma taqaddama min danbihi solo nañ jëlee ci Yazid mu mu ne gis na Seydina Osmaan anhu mu jàpp mu ne sotti na ndox mi ci ay loxoom ñetti mu ne daldi gëllax ndiku fiiru raxas xar kanamam ñetti yoon laxas roxos raxas loxo ndeyjooram ba ci coonc mi ñetti yoon raxas loxo càmmooyam ba ci coonc mi ñetti yoon daldi masa boppam raxas tànkam bu ndeyjoor ñetti yoon raxas tànkam tànkam bu càmmooy ñetti yoon di wax na ne moom Seydina Usmaan ne gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàpp njàpp lu mel ni lii ma jàpp nii ba pare wax na képp ku ko jàpp képp ku jàpp njàpp mii julli ñaari ràkk yoo xam ne sa bakkan waxtaanu toog yow ci dara ci mbiri àddina rek yàlla baal na la lépp lu jiitoon say bàkkaar